ziar kontaanee jox cër mbokk àdduna ziar kontaanee jox cër mbokk internet yi kon naa mbokkum réew mi ci seen seen C'est le bon TV sénégalais sunu gaal noonu la ñuy accompagner lion yi waaye nag bu leen fàtte ku am ñaari junni yoo maye mayal ku la neex waaye soo bëggee dégg dëgg jàppal C'est le bon TV te yow mii di ma seetaan di gan ci chaîne bi dawal gaa nga abonné ndax doo ko réccu waaye nag boo tàmbalee vidéo Setan ko mu jeex ndax njariñ la la plupart ci conclusion ba lay nek te bo seetaanul video ba mu jeex do meuna xam do meuna comprendre te do meuna joxe sa xalaat te damay bëgg soxla seen xalaat yeen ñep ci commentaire yi gaay nañu booster video yi way ah lu bax yomul tay nak comme nuñ leen ko yagg defalee rek waxtaan ci actualité waxtaan ci les faits sociétal jikko yi valeur yi ngor geek diine ji soxol ni waye tamit li nga xamanteni moy patrie la patrie soxal ñu ñu koy càmbar nag saa su kon nag gars yi dañuy ñëw ci thème bi équipe national lañ koy njëkkee ci démb defet bi ñu am dañ ci joxe suñu xalaat discours conférence de presse yeewu askan bi discours de Ousmane Sonko ban gis-gis lañ ci am ak ban entendement lañ ci am ak lan lañ ci war a leeral tas ko tasaare ko pour ñëpp mën koo comprendre waaye nag assemblée bu bees bi ñu am. Eh, bàjjo yi député waay waaye bàjjo yi député waay gàcce ngaalaama gi Mari Sagna Birame Souleye Diop ak bépp député boo xam ne yaa ngi assemblée nationale taxawal fa askan wi gars yi nag liñ koy tàmbalee mooy équipe nationale damay féliciter toute l'équipe et les dirigeants particulièrement Aliou Cissé ak ñi mu àndal muy joueurs yi jiite yombul surtout nag jiite réew mu mel ni Sénégal nga jiite ci dara dafa jafe ndax sénégalais lu ko neex rek la xam on est un peuple émotif maanaam sénégalais le sénégalais est émotif ñun on est émotif on agit sur le sur l' émotion maanaam ñun dañuy agir ci émotion te loolu boo jiitee réew mu mel noonu wala nga jiite ci lenn ci réew mu mel da ngay sonn parce que on est émotif et encore on am amnésique ñaar la ñu boole on est émotif émotif mooy koo xam ni ay sentiment am daf koy dominer du mën a def la part des choses du mën a muñal xolam lu ko xolam jox rek loolu lay def defe naa loolu mooy émotif waaye nag ki nga xam ni daf am amnésique bi mooy gaaw a fàtte barki démb lañ doon wax Aliou Cissé baal ñu ñu jéggal ñu baal ñu àq barki démb mu indil ñu fi coupe Aliou Cissé finaliste trois fois xaw quoi qu'on puisse dire mais Aliou Cissé nek na jambar ci équipe nationale té nit ki boo koy critiquer da koy critiquer par rapport à ses résultats té Aliou Cissé il a des très bons résultats ñun ñep gis nañ tek nañ seen beut fimu mu équipe nationale kenn mosu fa yóbbu 2015 biñ ko fi biñ koy embauché Sénégal dafa amone problème mu premier tour ñu dik ñu ñu ne ko génnee ñu mu yobbu ñu ba quart de finale Cameroun dóor ñu par série depuis boobu ba tey 2019 mu ñëw yobbu la finale 2021 mu ñëw jëlal le coupe te yóbbu woon na la final en tant que capitaine 2000 2000 2002 kon donc on ne soit pas amnésique dañ encourager gars yi te bañ leen décourager ñun ñoy kan ba Hollande bu ñu dóor Sénégal lan ngeen teg seen bopp balaa may dé ñu nan no Sénégal équipe non attends da ngeen mëna doon équipe bu mag ba gën doon équipe bu mag Hollande attention. ngir yàlla nit da ngay xam sa bopp ñu bañ a xastante suñu biir Aliou dem départ guñ dara dara xewagul kan bi waroon na leen jox exemple kan bi gisoo ay suñu match de poule yëpp ay match yu médiocre la woon waaye dañoo dem ba ci ba ci deuxième tour bi nga gis gaa ay commencé di def ay résultats football loolu la xoolal tey ñoom Messi da ngeen a gën Messi da ngeen a gën Argentine Arabie Saoudite moo ko dóor te ñoom ñoo njëkk a dugal ñu fekk leen fa remonté leen grande une grande équipe comme Argentine de Maradona France 2002 98 la jël coupe 2002 Sénégal ñeu dóor ko premier match match d'ouverture mais lolu mooy football match d'ouverture lañu ko jàpp France dóor ko 1-0 te France nek champion du monde dajale jour yi gëna a ci aduna ñu dóor leen 1-0 dañu gën France ñun. Hollande dóor ñu mu melni c'est la fin du monde damay sol maillot sax gaay yow ñi waro sol seen maillot ñu dañoy di japp Aline Cissé di ko def jinjeeru xew Aline Cissé war ngeen yeen yéen warati ngeen xas Aline Cissé gis nga nit ki choix yëpp mënul benn fii Aliou Cissé bi bu mënul fexe ba satisfaire toutes les quatorze dix-sept millions de Sénégalais te sax ngay jàpp ni dix-sept millions de coach ku nekk am nga sa équipe am sa onze su dugalee mag ñi su dugalee ancien yi ñu ne warul dugal ancien yi xale yi la war a dugal xale yi ñoom ñoo war football bu dugalee xale yi bu dugaloon xale yi fi mu toll ñu door ñu am na lañ xale yi amuñu expérience football dafa waroon dugal Gana Gueye dafa waroon dugal Cheikh Kouyaté da nga gis koo xam ne naan sax dafa waroon woo Aliou Saliou Ciss parce que Saliou Ciss même bu amul club dafa war a ñëw il agit sur le coup de l'émotion nan le jour bu amul club amul performance amul déjà boo koy convoqué sax clubam ngay bind comment on peut yéen Saliou parce que ko bi un di gëm wax naa Carotte keroog DTV ma invité di gëm sénégalais sa gëm favoriser salut amul ñu Aliou Cissé sommes len gëna am lu ko nakari ci système mais ñu nekk di top action dama bëgg ñu derrière l'équipe pousser nous à la victoire Nous sommes di len critiquer critique yu ñak fayda Mendy Edouard meilleur gardien du monde def ay faute de main critiquer comme si que Mendy ñoo defal lu baax et on a football on est des lions blessés parce que nous Cissé les envisager football coupe du monde sans Sénégal musul football jamonoy 2015 ba léegi ma gis Sénégal football sans Sadio Mané te ku ne xam ne Sadio Mané mooy mooy mooy moteuru équipe bi mu ngi mel ni Messi Argentine wala euh, euh, Cristiano Ronaldo ca ca fële ca fële ca ca ca Portugal wala nga ni Zidane ah, bu njëkk ba ca France xoolal Zidane bañ leen di dóor 1-0 Zidane dañ toog ci banc bi di jooy te bu Zidane footballoon France dinañu dóor dóor yi rëy kon yàlla dafa dogal ñëpp boo déggee ku naan ñëpp a yem rek daa manqué bëgg morom. du ñu yem Sadio Mané ñu maanaam ci diggante bu gàtt bi Aliou Cissé mënul am mënul résoudre équation Sadio Mané kon donc képp ku am xalaat na ko joxe mais ñu bàyyi di leen critiquer c'est un peu trop tôt pour critiquer leen même suñu leen dóoroon ñu ñibbisi sax waruñu leen critiquer parce que ñoom ñoo la gën a bëgg victoire bi Aliou Cissé moo la gën a bëgg victoire bi mais mënoo leen fexe ba seen onze yi ngeen am yéen Aliou Cissé di ko teg C'est Cissé li dal xelam ak liko mu jour, yi li dal xelam ak li dal xel loolu def nit ki am confiance si parce que ngeen ko doon critiquer mu ni leen Coupe d'Afrique ngeen ko ngeen bëgg diw d'accord ma football demewul noonu équipe yi mag yépp lañuy ñuy waxuma la ñun Sénégal Pays-Bas biñu door dañoo door lañ dañoo livrer match bu extraordinaire xol borom ñaari jabar fii ngeen nekkoon di ko critiquer ba barki démb rek avant match bi laa taxaw ne borom ñaari jabar yi dafa war a football dafa war a kii ñu ne ma non Kona yow booy kon xamoo football kooku waru ko Cheikhou Kouyaté te xoolal nu mu nekkee garmi nepp jàmbaar te pourtant il a reçu beaucoup de critiques kon arrêtez de critiquer des ay jàmbaar bariwul njariñ donc ci équipe nationale bi loolu laa am lu ma si wax focus ci deuxième match ñu nag Qatar jàppale leen ñu am ndam ñu def ko match par match que compétition la coupe d'Afrique bi nii la débuté woon ñu naan du baax

te du ñu am ku ñu ko waxal ca assemblée ba ay député dañuy taxaw naan man la député Macky Sall ñun fii budget lu fi ñëw ñu voté ko dañ daan loolu moo gën a métti maanaam nga am loola naqari fal ay nit di leen fay sa la xaalis sa di la fay sa di leen fay sax alal mu ngi mel nga yor seen mbindaan léegi di ko fay sa alal te moom man moom boo ko joxee dépense sax du toog boo ko waxee mu ne la maa tey ñun loolu moo ñu daloon ci suñu assemblée yi bi bi parti pouvoir moi am oppo mooy am majorité di dogal lu ko neex député yi war fa député du peuple ñu nek fa naan ñun on est député de diou on est député Macky Sall on est député PDS wala on est député de de de de paire mais tey jii yàlla moo dogal ñu am ay député du peuple ku melni ni Guy Marius Sagna ku melni ni euh, Birem souley manam dama bëgg ñu dem déglu tout rek ci discours Guy Marius ben ci bi muy wax ci suufu Sénégal ñu gaay di passer passeré ñu dellusiwaat ci. ñu toje Thiès Tëngéej Mbour ñu toje fep ci Sénégal mais il y a un problème il y a un problème ndax lan politiciens yi buñu bëggé gaaw am xaaliss sacc souf ndax lan politiciens yi buñu bëggé financer sen campagne électorale sàcc suufu béykat sacc sàcc suufu sàmmkat sàcc suufu néew di doolé mais dafa wara a jeex. Il faut mettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre dans les spoliations foncières, dans l'accaparement foncier. te du borom bayre yi ñoom ñooy sonn ci loolu néew di doole comment avoir la souveraineté alimentaire bu fekkee ñu ngi sàcc suñu suuf di ko jox ay doxandem ban réew ci àddina bi Le sénégalais peut a un mètre carré de souffle. ban ban ñun ñuy ñëw di joxe di joxe di joxe ñun ñooy dof yi quoi ci àddina bi ñun nit yu ñuul ñoo gën a dof ndax lan tubaab yi yebuñu de ñi ñu jiital lañu yeb te loolu dafa war a jeex il faut mettre de l'ordre dans ça suufu ba la terre à ceux qui la travaillent nañ ko bàyyil béykat ak sàmmkat. retour sur le plateau yéen a gisal seen bopp bu njëkk dañ daan am lu ñu naqari duñu ko am ku ñu ko jooyal waaye léegi lu mu métti métti ñu ngi am soulagement parce que am nañ ay député yu xam li ñuy dund ñun askan wi xam député yi xam Sénégal li ko teree xam député yoo xam dañoo dañoo dañoo am ouverture à travers le monde ni muy doxee ak économie Sénégal lu ko teree dox xoolal Guy Marius Sagna ku nekk say cinq minutes da nga ko jox askan wi bu njëkk nag di dañ daan am dix minutes député euh, majoritaire lépp partisans palais ba lu leen maanaam lu bëgg loolu la ñuy def léegi nag lu mu bon bon ñu ngi soulagé wu un peu nga taxaw am lu la naqari am problème mu ndox moo naan nga dëkk Saraya nga dëkk Goudomp nga dëkk Dibanaar nga dëkk au fond fin Sénégal foo nga lemi nga dëkk Sabodola nga toog gis député toog assemblée di la waxal sa jafe comme ñun APIX tey. ñun APIX dañoo toog suñ suñ keroog suñu xol yi comme wanagu mbott dañoo toog suñu kër yi di seetaan ay député ñu taxaw di wax jafe-jafe yi ñuy dund ñun waa APIX au moins. daf ñoo soulager au moins suñu xol sedd na ñu xam ne ñii ñu jiital kat ñu ngi focus ñu ngi bàyyi xel bu njëkk nag loolu amul woon kon assemblée meilleure assemblée bi ñu am tey c'est grâce à l'opposition tey député Yewwi Askan bi yéen a ngi siggil sénégalais yi yéen a ngi soulager sénégalais yi keroog apis comme fait ñu dagg vidéo yi di ko envoyé ñun ñu wax ni ñun APIX dañoo dëkk biir apis ñu jox ñu déplacé ñu ci autoroute à bis Pikine irrégulier sud depuis 12 ans ñuy daw ci suñuy këyitu titre foncier état du Sénégal war ñu ko jox joxuñu ko waaye nag di daggal ay intrus ay délinquants fonciers ñëw ci suñu espace public ak suñu espace réservé école gendarmerie police dagg ko ak espace commercial dagg ko def ko ay boo jaay ko ay nit ñun ñu taxaw di opposé wona na loolu du fi am ndax ñun ñi nga xam ñoy les personnes affectées par le projet moy pap yi ñun suñuy këyitu kër ñu état du Sénégal war a jox joxuñu ko te état état du Sénégal mayuñu kër yi de daf ñu koo jaay daf ñoo déplacer fay ñu xaalis jaay ñu terrain bi ñu jënd ko mu ñu ne ñu nag seen titre foncier dinañ leen ko jox d'ici peu de temps pendant douze ans ñuy daw ci suñuy titre foncier joxuñuñu ko waaye di caxat-caxatee ci ñuy espace public te ku ne xam na ni APEX ni ko yàlla bindee ni ko Abdoulaye defaree moo dàq sax almati viabiliser ass lépp éclairé suuf si rek quarante deux milliards xaw ma quarante trois milliards lañ suul si suuf lépp lépp ci suuf la jaar lépp nekk lu normal kon tey ñun ñun population APIX ñoo taxaw teg suñu bakkan jàkkaarloog délinquant foncier yooyu. kon suñu taxawee ba ay député duñu jooyal suñu jooy gouverneur yi fi nekk yëpp nangu ñoo jox suñu këyit ñuy daw depuis douze ans papa yi ñu ngi dee yaaye ñu ngi dee joxuñu suñu këyit ñu toog di gis ay député du peuple di ñu kaasal loolu daf ñuy soulager.

dina bax ñun ñi tok fi ku ci nekk ci ñun posé une question mu jëm ci ñun ñëpp kañ lañu que dem goré ñun ñu tok ñëpp les 165 députés ak ñi ñëw fi kañ la dem Gorée c'est quand la dernière fois bi ñu Touba Kota dem Fatala l'île au coquillage kañ kan ci ñun mo jël gal dem ci Ngor yof Gorée Île des Serpents wërndo ko ci ben journée kan ci ñun moko def may kan ci ñun moo dem ci parc de Djoudj kan ci ñun les forts abandonnés je parle des forts abandonnés fii nga xam ne ni français yi nekkoon nañ fa abandonné ko forts yépp ci biir Sénégal kan ci ñun moo def le tour des forts kan ci ñun moo xam baobab bi ëpp circonférence maanaam guy gi gën a rëy ci Sénégal fan la nekk ci biir Sénégal kan moo ko xam kan ci ñun moo xam secret yi nekk ci garabu lekkat yi nekk Oulampane kan ci ñun kan ci ñun kan ci ñun Manam, ba démé université Pire ñaata téré la fa tubaab yi ak ban place le sëriñ ci gasoon fofu pour suul téré ñu bëggoon mu mucc kan ci ñun moko dem xam ko alors limay poser une question c'est pour dire ñun suñu bop nous devons d'abord travailler à donner à nos enfants l'estime et l'amour de ce pays ba ñu xam fa yépp fan la nek ci réew mi su ko né buñu maggé nous ñu amati débat sur le tourisme intérieur on crée on suscite la curiosité par rapport à ça enracinement avant ouverture et on veut tout surtout compter sur l'étranger sur l'étranger c'est vrai c'est important parce que la destination doit être promue mais je pense que nous devons faire les taxations nécessaires les prix nécessaires pour yombalal nous ñu je pense que nous devons faire le dynamisme monsieur le ministre les analyses économiques. yéen a gisandoo de yéen a gisal seen bët xool leen fi Birame lay Diop waxee déglu leen fi mu waxee xoolal suñu îles yi ñu am quatre communes françaises yi nga xam ne moom lu fi tubaab bi bàyyi woon ressources yi sénégalais yi am euh, ressources naturelles yi sénégalais yi am est-ce que ñun ñun sax xam nañ fu mu ne jàmbaar yi li tax ñu doon Sénégal tey li tax ñu doon tey ki ñu doon ndax ñun jàngal nañ ko suñu doom yi est-ce que sax suñu député yi wala suñu ministre yi wala suñu président yi dinañ dem dellu ginnaaw xool la ñu amoon fu mu toll ak nu mu demee ak suñuy ressources naturelles nag lañ ko yoree ak naka la naka la mën a jariñee Sénégalais yi est-ce que dégg ngeen fi Birame Souleye Diop waxee lii lañu soxla ci député yi dem làqorti làqorti génnee teg ci kaw taabal bi saafara mën a am e balaa ñoo balaa ñoo voté budget yi leer naa ñaa sénégalais yi gatché ngaalaama yeen yeen ñi nga xamné yeen a changer yeen a def majorité yeen a may doolé opposition bi particulièrement yewi Askan Wi yeen a len may doolé ba tay ñuy mëna wax seen jambat diko wax assemblée ba ci ñee sax amatul lu wax buñu jëlé cadeau ay suite boote lañuy wax nga xamné dañoo manki dañoo manki ba melni ñetti yi fukki di seddo député yi nga xam ñoo nekk bennoo bokk yaakaar ñoo ñooñu dama yaakar so jamee seen yaram deret du génn dama japp ni ku leen jam deret du génn leneen moy génn mais deret du génn

barki démb lañ def projet d'armement armement ñaata alalu Sénégal lañ jënd arme 45 milliards 300 arme ci jëndin bu bu jëndin bu nuisible bu bu louche lolu ñu war xol ñu war tit suñu économie delu ginaaw kon suñu amé député yu melni té ñaar ñaar ñi rek la jël dé Birame Souleye ak Guy Marius Sagna am na ñeneen ñu leen gëna wéx weex foofu ña nga ci ña ci assemblée ba buñ jëlé cadre sa xol bi day melni wala gu mbott parce que buñ jëk dañ daan am jafé jafé dañ daan yaakaar ni sax est ce que ñu ñu jité buñ demee ba falu rek kon dañuy fàtt dañuy fàtte suñu jafe-jafe dañ daan dem ba naan est-ce que ñi ñu jiite xam nañ suñu jafe-jafe waaye léegi suñu demee ba suñuy député toog ci assemblée bi di di wax loo xam ne sax ñun ñi dañ yaakaaroon ne ñoom xamuñu ko kon nga xam ne c'est fi lii moo des pour Sénégal nekk Sénégal bu bees nekk Sénégal pour des Sénégalais doomu réew mooy tabax réew ñu dem nag ci daaj dëpp gi tàmbalaay saa bee bu mag bi Ousmane Sonko Nous ñu dem déglu tuuti rek ci ci fi muy waxee ñun askan ban débat lañ a poser lan moo a am importance ñu nekk ca focus ca ñu bañ ñoo tardel chaque jour ma wax surtout les patriotes wala ñu bokk parti ñu bokk opposition wala ñu bokk ñu dem déglu Ousmane Sonko mu jël di jaay jox ko même yooyu même même israël yooyu mu tuddoon noonu la jël dem dagg dëkk ba jël au commandement de la gendarmerie génne fa dem leen almadi mu jël lu mat 5000 mètres carrés jox ko ñooñu pour ñu tabax fa ngandim immeuble defar la ñuy defar te ñooy moom immeuble bi ñoom bi ma ko dénoncé dégg nga xaw ma directeur patrimoine bâti génn di wax ay waxu picc li mu wax yépp dafa confirmer li ma waxoon est-ce que ñun dañuy seetaan Macky Sall continuer moom ak ay ñooñam di pasar pasar réew mi nii di dem jël ay waa bitim réew di leen daggal suñu réew di leen ko jox dus dus bàyyiwul suuf si suufu taax yi comme suufu àll bi bàyyiwul géej gi bàyyiwul pétrole bàyyiwul gaz bàyyiwul zircon bàyyiwul lenn ñun ñu toog rek di seetaan boo waxee ñu ne dañuy weddi man dama leen naan toujours man de pare naa pour ñu organiser débat ma réitéré ko fii ministère de mines na toog ministre de l'économie et des na toog ku ñu bëgg na ñëw toog moo nga nekk fii di fay ay nit ñu nekk ci mbedd mi di wax su doon pays bu normal la ñu nekk dañuy ñëw ñu débat débat public ma démontrer leen ni jaay nañu réew mi ñi mu àndal jaay non c'est des questions techniques vers tout question technique lan jaay alal contrat question technique kon ngeen assemblée nationale premier jour Guy Mari Sagna interpellé ministre des finances ne ko israélien ba Yo, signal ngeen len exonération ne fay l'impôt fi Sénégal dégg leen bu baax wax dafa am solo jël suñu alalu réew lu ay centaine de milliards nga jox ko ay israéliens wa bitim réew ñooñu ne ñoom duñu fay impôt Sénégal débrouillez-vous mais duma fay l'impôt ñu wel wëlbatikuwaat Abdoulaye Daouda Diallo leen benn document ne leen du ngeen fay impôt du ngeen fay TVA fii biir réew mi ay dizaine de milliards ñu ñàkk noonu ci lu neex waa bitim réew te jamono joo xam ne tey jamono ji ñu ngi def tournée PPA boutiquier bi ne ci koñ bi su fayul cinquante mille francs yi moo war ñu tëj boutique am waaye ku jóge bitim réew moom mun na ñëw ñu baal ko impôt wu ay milliards yi milliards loolu est-ce que jaadu na. li moy les vrais débats au Sénégal c'est pas le troisième mandat wu Macky Sall ay waxu kacaw buñ ci tollé dina wax sénégalais ndax day def troisième candidature parce qu'il ne sera pas président une troisième fois au Sénégal Inshallah. lol au moins ñep xam nañ ko la ci dess yeb ay waxtu la ak ay ñun suñu yoon newu ci scandale yi fi am dégg ngeen démb ab ministre ñu interpellé ko ci scandale 29 milliards prorogue ministre bu nilaar boo xam ne français bu leer sax mënu ko wax ci assemblée nationale ministre des finances mo mujj jël cadeau gi diko ton retour yéen ko gisandoo ba tey man ay feelaay wax duma sos duma duma duma nar dama lay wax li dégg ngeen Ousmane fum mu bala nga nan nam nefa gaay buñu buñu bu ñu la ay débat y a des débats plus yu gën important les débats les plus importants mooy naka la ñuy def ba redresser le Sénégal poser des jalons. donner des proposition focus ci lan la ñuy def ba génnee loxo yu bon yi ci réew mi te dem réew mi ba Sénégal mën a may industrie Sénégal mën a moom boppam ci autosuffisance alimentaire lu mën a nekk la deux mille milliards bi ñu def ci terre bi non suñu ko defoon ci mbay meeg sàmm gi kenn waxatu ko